Je am un message bu mu message vous day jëm ci suma parti bi muy APR jëm tamit coalition bi nga le président Macky Sall leader dafa melni opposition bi dañoo hot hotel. Manam dañoo intimider ndax le président Macky Sall def ci Sénégal ci réalisation Senghor Abdou Diouf ba Abdoulaye Wad président musko def té duñ ci wax kenn du ci wax fi mu nekk dafa melni ni <coughs> distraire ñëpp di wax ci ay affaire mandat bu jotagul fofu lañu jëmele <coughs> mais dañ ko wara bañ lu ta duñu wax ci réalisation du président Macky Sall tey jii soo xoolee ci walu forage forage yi ñu fi fek ñun dañ ko multiplier par 300 autoroute 200 km lañu la nous avons ngi et quelques routes bitumées ku dem ci agriculture ni ñuy béyee ren li Sénégal di la productivité en agriculture depuis ses indépendances mais c'est ça les réalisations c'est ça les réalisations Le ngi émergé sur terre Nous avons ñu troisième mandat mais l'opposition, bi réalisation nous ñu def nañ ma réalisation de opposition bi def amul ben rek li ma ci depuis 9 ans il a fait toutes les réalisations il a battu tous les présidents nous avons ni ku gisul divertissement ou troisième mandat ki deuxième mandat lu jotagul té élection locale yaa ci kanam élection législative ci kanam donc je ñaan parti bi di ñaan pour coalition buñ leen top ci chemin La Ligue bi ñu tàmbali depuis 2012 muy contrat nous avons joxoon les sénégalais ci ce que nous continuer nañ ko fait. lu Nous duñu wax programme Nous sommes gis critiquer le président Macky Sall ci ses programmes le FONGIP Combien d'entrepreneurs jeunes le former C'est des milliers. Grâce au fonds JIP, Le programme de logement. aujourd'hui, a un programme d'habitat depuis que le Sénégal est Sénégal, nous avons un programme aussi ambitieux de logement. Mais nous avons ce programme. Donc, je pense que nous devons arrêter cette récréation ce divertissement Nous nous concentrons sur l'essentiel. essentiel aujourd'hui continuer les réalisations parce que nous avions un contrat avec avec les Sénégalais mais ci que nous jusqu'à présent Nous devons ñun savoir-faire nous devons wara am biri ci yoon boo xam ne du suñu yoon yoonu troisième mandat du suñu yoon suñu yoon mooy les réalisations du président Macky Sall nañ ci wax nañu wax ci li ñu def agriculture nañu wax ci li def ndox des villages yi ñu électrifié plus de 3000 villages am nañu tey jii courant nañu wax ci Il a Touba bii nga xam ne ñun dañu daan màggali bi juddoo ba léegi ay 5 heures de temps 6 heures de temps am na ñuy fanaan ci yoon bi 2 heures de temps nga dem julli ci juma euh, euh, Touba dellu si waat mais nous avons ci yooyu li ñu président réalisé mais des livres sont sont ici des livres ont été écrits sur les réalisations du président Nous devons mettre nos livres en évidence mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal qu'est-ce qui se passe ils veulent le développement ou bien le sous-développement parce que tant que nous sommes top..! les journalistes comme vous nga ne poser les questions ba sax ñu ci ragal ñu dem ci pourquoi parce que ku dem média la première question troisième mandat mais troisième mandat nous avons des engagements avec le peuple engagement bobu mandat la parégul ñu koy togg nous bu ñoré ñu sét ki nga ne moko wara yak xamul ndax da des quand même soyons sérieux on veut un Sénégal émergent nous laaj essentiel bi nañu essentiel a aucun pays dans la sous-région qui a autant de social durant cette Covid que le président Macky Sall amul l'Iman ma le Le président Macky Sall a ci Covid bi en matériel médical en matériel sanitaire alimentaire avec hein, ak donation Mais muy jox mais président de président même la France même l'assistance sociale même la France a mais nous nous wax ci divertir ci faire le troisième mandat mais quand même soyons sérieux